Ramadan Moubarak. Les supermarchés Low Price by Eudika vous accompagnent durant tout le mois de Ramadan avec une large gamme de produits, plus de 10 000 références, des articles de qualité à des prix imbattables. Faites toutes vos courses en un seul lieu. Des produits alimentaires, des vaisselles, des produits de maison, une boucherie pour vous servir la meilleure qualité de viande, sans oublier les fruits et légumes bien frais. waaw daagul biir supermarché low price bu EDK fekk fa ay panier koor yu am maanaa si njëg lu yomb fayal ak kàppay am si ay remise yu am solo teg si dool li mën a bokk si tirage au sort pour gagner ay lot yu jékki dayu ak kàppay mooy sa sukkaru koor les supermarchés low ay mbégte ak bànneex kese la les supermarchés low price de EDK vous souhaitent un bon ramadan min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare rawatina mbokk yi nga xam ne ñi ngi safoo Sunugal 24 di ko topp fii ci biir réew mi ci biti réew kenn ku nekk rafa nga nekk ñu ngi naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah rawatina ñi nga xam ne dañoo tànn émission bi ñu tuddee jotaayu koor ngeen di ko am bis bu nekk bu heure bi jotee ñi di ko ànd ak ay boromi xam-xam yoo xam ne dañuy jógee ci gox yu fasantikoo ñuy waxtaanee li nga xamante ni mooy koor waaye waxtaane li nga xam ne yeneen i ponk la yoo xam ne moo poor ñoo ànd nekk ay farat si noonu lañu ñu dajalee tey sunu gan gu tedd dalalee fi sunu gan gu tedd ñu koy wax Cheikh Makhtar muy koo xam ne ku ñu siiwee la ci biir réew mi ak biti réew muy def juxdu bu am doole ci wàllu alquran ak funoon yi nga xamante ni ñoo ànd ak alquran kon Cheikh Makhtar asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi ibtadaa'u al insaana bi nicmatihi wa sawwarahu fi l arxaami bi xikmatihi wa abrazahu ila rifqihi wa ma yassarahu lahu min rizqihi wa allamahu ma lam yakun yaclamu wa kaana fadlullahi alayhi azima ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem ñu ñuy déglu ci baatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw nag biñ leen nuyoo lañ cay tofal mooy ñaan ndax nit ki saay boo ko yéenee jàmm muy baatu salaam danga ko ciy dollil ñaan te mooy sama kàddu yi mboolem ñi ñuy déglu di ñu seetaan yal na leen fekk ci jàmm waaye tamit di am mbégte bu baax a baax toog ak sama sëriñ sama xarit sama soppe waxuma la dara rek waaye ca yaru beeg teggin ba muy xaaj sengaan mm. eh, sama sëriñ fonk ko lool muy Cheikh Hadi kon tamit tabaarakallahu noonu rek la ñuy nuyoo mboolem ñi ñuy déglu di leen ñaanal waaye tamit jiital la yow ci ñaan bi xaaj sengaan jërëjëf Cheikh Makhtar ci nuyoo bu jotale boobu noonu la ñuy nuyoo tamit comme ni nga ko waxee sëriñ Hadi Niass suñu lépp su ko defee dañuy njëkkante waxtu wi rek incha dugg ci thème bi mubashara mu mel ni ku ne koor ni alquran ndax kenn ku nekk ci ñin bis bi nga juddoo bu jotee da ngay wane ni bis bi laa juddoon ngir màggal ko mu dale woon ci alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne altine bu jotaan da daan woor biñ ko laajee lu tax nga koy woor mu ne ci laa juddoon ci laa gane woon jamono kon weeru koor wi nga xam ne ci lañuy nekk moom it bu ñu doon wax li nga xam ne mooy wàccuwaay bi mu gën a rëy ci moom mooy alquranul karim ci lañ ko wàcc mm-hmm. tey nag ñu bëggoon a tànn benn poñ wala ay poñ ci alquran ñu waxtaan ci ak Cheikh Makhtar mi nga xam ne xam nañ liggéey bu rëy bi may liggéey ci alquran bi ci njëkk mooy tedd nga alquran mm-hmm. Cheikh boo ñu ko doon misaalal nan la toll waaw alquran ki ko wax sengaan mm-hmm. du nit te moom mooy moom mooy ki xam nit waaye tamit di wax wax ji jëm ci nit mu di waxi boppam kon munta yem ak waxi nit moo tax dañ ciy jéem wax ci ñun liñ xam waaye li mu ëmb ci njariñ làq ko ci ay ngëneel ak i màggaay yàlla rekk moo ko xam dëgg ndax ma fi kalimatullah wallaahi la alquran wax kon buñ jëloon àdduna bi yépp yàlla subhanahu wa ne lépp loo xamante ne lu yore bàkken la di mbindeef ñu jox leen xalima waaye xalima yi tolloog mbooleem lu fi sax ci garab ñu wef ko mu nekk xalima daa yi tolloog mboolem li fiy géej mm-hmm. ak i dex ak teen yépp ñu soppi ko def ko daa yàlla nee na bindkat yi dinañ dee mm-hmm. daa yi niis xalima yi jeex te duñu bind toqitu xam-xam ci lenn ci xam-xamu yàlla yi ba muy wax dafa ne mu wëlbatiku wax ne wa man yuutal xikmata faqad uutiya xayran kathir mm-hmm. kon ndekete mbir ma fa mu nekk mooy xikma bi la yàlla jox nga mën a wax ak nit ñi ci mm-hmm. teggin ak xorma waaye mu làmboog sharia mm-hmm. mu bañ a doon sa waxi bakke loolu bu xësee ba am rekk xaj sengaan da ngay gis ne ne pour kovenk nit ñi ci diine l'islam dafay rafet dafay jaar yoon alquran nag ki ko wax mooy yàlla yàlla yóbbu ko ci barab bu tedd ci lawxil maxfuud waaye nag ànd ak loolu yépp mu ngi koy jox sayduna jibril mi gën tedd ci malaayka yàlla yi mu koy jële ci baytul di ko indil ki gën tedd ci mbindeef yàlla yi wàccee ko ci weer wi gëna tedd ci weer yi waaye wàcce ko ci guddi gi gën ci guddi loolu nag li mu boole ëmb kon kawe na moo tax yow mi ko xam yàlla boole la ci summa awratna alkitaaba alladina stafayna min ibaadina yàlla ne na fa minhum zalimun li nafsih wax wa minhum muqtasidum mu teg ci ne wa minhum saabiqun bilxayraat bi idnillahi nag yàlla nee na nag ñooñu fa muy mujjeeg ñoom mooy dalika huwa alfadlul kabir mhm. duma ci yem tamit danaa leen terale jannaatu adnin yadxuluunaha mhm. yuxallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a mhm. wa libaasuhum fiha xariir ñoom nag la ñuy sante yàlla delloo ko njukkal mooy wa qaalu alhamdulillahi alladi adhaba anna alxadan inna rabbana la ghafurun shakur mm-hmm. aaya yooyu boo ko doon topp du jeex kon wane ne alquran mm-hmm. bu la ko yàlla joxee na nga xam ne ne moom moo la boole ci nitam yi mm-hmm. ndax Seydina Omar bun Xataab ak Abubakarin Siddiq dund nañ ba génn àdduna te mokkaluñu alquran kon mokkal alquran jagle yàlla la waaye alquran tamit ci nga mën a xamee sa borom ndax naka nga mën a xamee mooy yàlla subhanahu wa taala du benn bët bu ko mën a gis waaye wàccu tak kenn di wax ngay dégg kàddoom mm-hmm. waaye ànd ak loolu yëpp mu ngi fi bàyyi loo xamante ne ba àdduna du tukki mi ngi wax ak ñun kon nga gis ne ne loolu ku ko xam dëgg di ko toppatoo mm-hmm. lay yàlla di def ci yow di nga wuuteeg mbindeef mm-hmm. waaye tamit nag fa may tëje ci ngëneel lenn ci alquran alquran moo am dayo gu toll ne bu yowmal qiyaamee ñakka daan toppatoo te nag defewuñu ko li ñuy tuddee commerce mais ñu ko toppatoo ko toppatoo bi ci war dangay gis ne ne day sol robb avocat nekk ab jëmm boo xamante ne moo leen di ramm ci seen kanamu borom subhaanahu wa taala macha allah Cheikh Makhtar ci loo am solo loolu nga def ci muqaddima bi muy loo xam ne lu jotale la xam naa loolu moo ñee may rek ñi mën dugg ba tey ci ki nga xam ne dafa jàpp alquran mhm. maanaam ban njëriñ la ci am ak ki nga xam ne dafa dummayu alquran lan daan moo si mën a fekk waaw xaj sengaan ki nga xamante ne dafa jàpp alquran mhm. ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa ne eh, eh, eh, inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu mhm. te alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuuaduun waaye nax nag naxnu awliyaaukum fi lxayaati dunia kon yàlla subhaanahu wa taala bu demee ba wax lii ki nga xamante ne mooy aj génn àdduna bi moom buy génn àdduna day mel ni dafay ñeewante doom yu ndaw yi mu fi bàyyi waaye yàlla daf koy xamal ci ndigalu yàlla malaayika yi wax ne ko fa ngay jëm bul fa tiit yàlla la fa wuutu mm-hmm. mooy ki nga xamante ne da daan toppatoo alquran daan ko sonnee pour njabootam yi jàng ko kooku yàlla ne na du ma yem ci teral ko ci àdduna mm-hmm. bàmmeel yi danaa ko teral mm-hmm. waaye nag bu yomal xiyaamee dana siggi ci kanamu ñëpp waaye la mu ca gën a neex mooy njabootam yi mu jël xirtal leen bàyyee leen ak yàlla yàlla nee na nag ku mel noonu maa koy wuutu ci njabootam tey Touba nu mu mën a mel alquran moo ko def. dëgg la. Tiwaawan nu mu mën a mel alquran moo ko fal. Mm-hmm. yeneen gox goxaan yi yu fasantikoo yi nu ñu mën a mel alquran moo yëkkati. Mm-hmm. waaye nag loolu day dellu ci wattabaatuhum duriyatihim bi imanin bi bihim duriya mm-hmm. deret la boo xamante ne day topp njaboot gi wallaahi maam a ko liggéeyoon sët yi di ko doon nontoo ba tey jii waaye nag ñu bañ a bokk tey ci sët yi nga xamante ne dañuy dugg ci fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahwaata fa sawfa yalqawna gayya ki nga xamante ne nag li doon yitteem ak liggéeyam yëpp fexe alquran yëkkatiku ba ba alquran ko turam feeñ kon yow mi njabootam mujjee ñëw bul yàq liggéey boobu dëgg kon alquran daal dana dimbali teral ki nga xamante ne dana ko toppatoo waaye xiirtal ci njabootam mu des nag ci ki kay dënge ki kay dënge euh, waxuma la dara rek waaye dëgër fit munta weesu ngay sosal yàlla ci ay kàddu yu ñaaw allahu di ko ko askanale beneen bi si yonent bi rek tëkku na ki nga xamante ne daf koy sosal di ko waxal wax ju mu waxul mhm. man kadaba alayya mutaamidan mhm. fa jazaau jahannama nee na ki nga xamante ne waxal na ma wax ju ma waxul jublu ci ne yonent bi moo ko wax te mu tay ka yonent bi nee na kooku lay payoram mooy jahannama allahu akbar waa ndéem yonent bi ngay sosal di am payor boobu ku sosal yàlla lu muy am ndax maa ngi fi dégg ñoo xamante ne ci waxin mhm. ñu yées lañ ci seen kàddu yi ñuy génnee ci seen làmmiñ te di woote woo nitu diine. te di woote woo nitu diine. di woote woo borom xam-xam. di woote borom xam-xam. Mm-hmm. waaye ànd ak loolu yëpp nit kenn du ko bañ ndax mbindu yàlla la. dëgg la waaye jikko nit la ñuy bañ. iblis yàlla dafa jëppi jikkoom. Mm-hmm. moo tax mu ne mbooleem li ma bind te ñu bëgg ma ñëw leen ngeen sot sotleel ma ci jëmm ji ngeen jëppi ko. Mm-hmm. ba àdduna sosoo ba léegi lu nit bon bon xalaatul am doom tuddee ko Iblis. déedéet le satan. kon ngeen gis ne ne kooku yàllaa ko jéppi ba mbooleem li mu bind mu jéppi ko. waaye am na ñu koy donn ci ay jëfam. mooy ñii nga xamante ne tey ñoom lañuy gis ñuy réeral nit ñi. waaye jublu ci loo leen wax lu nekk rek ñu ne ñu ci wax lii waaye lii lañ ci jublu woon. loolu ñi leen fi jiitu woon noonu lañ daan def. <laughs> Moussa Samiri yi borom xam-xam la woon. ku ñuy tuddee Qaaruna borom xam-xam la woon ku ñuy tuddee Haman borom xam-xam la woon dañ ne diine gi ku ci bëgg yàq sax faw nga nekk borom xam-xam. ndax tey Iblis mii nga xamante ne moo sooke gaa yi. di leen réeral boroom xam-xam la ndax téere yi fi wàcc yëpp mokkal na ko. tey yonent yi mu fi galgal yëpp ci xam-xam la leen jaar. waaye keroog ba mu demee ba dëgg jub ko rek da ngay gis ne ne dafay mujjee daw ba yonent bi salaay sallam juddoo dafa ñëw ba ci moom jooy jooy yu metti yonent bi laaj ko kan nga gën a bañ mu limal ko quatorze personnes waaye ka mu ca jiital daf ko ne yow Seyduna Muhammad yow laa gën a bañ te lan mooy sabab bi mooy yonent bi taxaw nag Abubakar Siddiq ne ko man iblis mënul ci man dara ñu laaj ko lu tax mu ne iblis daf maa jébbalul hmm. wan ma gannaaw waaye ku dul man mhm. iblis mën na ci yow dara ñoo ñu takk noonu noonu nga koy toppe ci eh, ca naas mu ne minal jinnati wan naas mhm. du yem ci jinne rek waaye même ci biir nit ñi am na ci ñu ci iblis roof mhm. mooy ñii nga gis tey ñuy daganal lu yàlla xaraamal mu mel ni nag internet bi ñu toll nii ba ci télévision yu mag yi sax da gis ñoo xam ne dañoo waroon di wagar diine ji wagar njàngaleem sunu borom waaye jëmm yi nga xam ne ñoom ngay gis saa su nekk ñi woote woo diine mhm. te ñi wax kàddu goo xam ne bu doon ci jaasi lislaam ngi taxaw dañ la war a rey mhm. loolu ban jàngat nga ci am waaw xaaj dafa mel ni même ñi nga xamante ne tey mhm. yàlla nattoo ne leen ñu jiite mbooloo boo seetee ka ci ëpp mbooloo mooy ki nga xamante ne dafay dëkkee di wax toj toj waaye Sénégal sénégalais la yàlla nattoo lool nekkal fii di wax arash ak li ko ëmb duñ la déglu tuñ la invité waaye boo tàmbalee di wax loo xamante ne lu bakken bëgg la rek ñëpp lay statut te da ngay gis ne tey xam ngeen ne lii ñii di wax tegawul ci dara nga jël ndax tey fu mu nekk nii yow yàlla may na la kàttanu saxal la làmmiñ ñoom li ñuy tudd nga mën kaa tudd ci sa gémmiñ wallaahi waaye lan moo la yóbbee tey nga mën a soppi wax ji xormaal ko mm-hmm. ndax yàlla subhaanahu wa taala moo wax yonent bi ne ko yonent bi moo wax tagge taggee boppam ne adabani rabbi fa ahsana ta'dibi macha allah yàlla ma yar te rafetal na nim ma yare wallaahi te yonent bi nee na am na aljanna boo xamante ne mm. ñettaa fay dugg te ñàkk yàlla dencal mhm. yonent bi mu leen booleel xamuñu ko mhm. malaayika yi leen di gunge xamuñu ko même ñoom ñiñ ko dencal war leen ko fay xamuñu ko mhm. ndax aljana la boo xamante ne vitrine la yow mi taxaw ci kaw da ngay séen ñi nekk ci biti ñi nekk ci biti daañ la séen bañ ko laajee yonent bi ñan ñoo fay dugg mu ne ñetti ñi ki jël xam wodd ko mu tege ci ma waaye ànd ak xam-xam teg ci dëggu kooku dana ci dugg bi ko ñaareel mooy ki nga xamante ne dafay dimbali nit ñi ci lu kenn dul yëg mu def ko rek li wajhillahi taala ak kii naafile guddi yi di ko dundal te jubluwu ci kenn euh, ngistal kooku tamit dana ca dugg waaye may wax ne sénégalais yi nañu bàyyi xel ne lu bon kenn du ko yaatal wallaahi tey ñii nga xamante ne tamit ñooy jaay seen produit yi jublu ci di jël ay yàlla yi di ko dëngee. waaw tey boo ko defoon ci turu sëriñ léegi tey doo fanaan. pourtant ñoom nag dañuy woote woon ne ñeneen ñi amuñu xam-xam. ñoom mm-hmm. dañuy jàpp ne ñoom ñooy boromi xam-xam. Mm-hmm. te bëgg jàllale seen message. ci mm-hmm. internet bëgg jàllale seen message ci télévision bi. moo tax ñuy jël ay yàlla yi di ko firi nu leen neexee. tey waxuma la dara rek borom xam-xam dëgg du toog di dàgg sante. dëgg la du dàgg sante. dëgg la. tey fu mu nekk nii ñoom ci loolu la ñuy woo borom xam-xam te amuñu seen jot tey ñay toog ak ñoom ci plateau mooy ñi nga xamante ne mooy nitu média yi tiktokeur yeeg tiktokeuses yi ñoom ñoo leen di invité di leen dalal tey tour bi ñu am ñoo moo moo leen ko may waaye ànd ak loolu yëpp borom xam-xam dëgg kiy wax te yàlla rek tax du am ak ñoom jot ay la te nag dangay gis ne ne tey benn fu ñuy suufalee boroom bi xormaaluñ ko kooku boo toogeek moom attibaacu tasriqu attibaa wallaahi jikko day sàcc moroomu jikko dëgg la te bu yàggee luñ ko waxal rek yow wax la ko ndax dangay ngay mujjee xeebu ci kanamam dëgg la am na ñoo xamante ne toog ak ñoom sax du ko jar moo tax euh, euh, euh, li may li may junj foofu mooy inna alxalaala bayyinun wa inna alxaraama bayyinun li li li dagan leer na li xaram leer na mm-hmm. tey fu mu nekk nii misaal bi ma la ciy jox pour déggalaloo ko ñoom ñu taxawee ne ànd ak sa soxna ci bëccëgu koor mm. dagan na mm-hmm. yow mi xamul sax dinga jël vidéo bi dem laaj ko beneen oustaz ne dama dégg oustaz bu wax lu rëy kon mm. xam nga ne lii dafa rëy na sax ku jàngul sax rëy na ki jàngul xamul dara tey bu ko gisee dana taxaw jël vidéo bi dem laajte ko ndax lii kii wax ci bakken la tege wala ci xam-xam la mm-hmm. kon da gis ne ne li nga xamante ne dëggu na mm-hmm. yàlla moo ciy def benn lijaaba boo xamante ne mm-hmm. saay bu jibee rek di nga xam ne ne yow mi xamul sax di nga xam ne ne lii mbir a ngi ci mm-hmm. bu dëgguwul it tamit yàlla dana la ko siñaale si sa jëmm ndax lépp lu bokkul ci doomu aadama rek yàlla ko koy xamal kon léegi saafara bi ci mbokk yooyu maa ngi si gis koo xam ne suma juumur sant yu saaxo la moom ci tiktok bi rek la nekk di firi alxuraan ji ni ko neexee am na tamit mbokk moo xam ne ma yaa naa sama jumu siise la sant moom it daa nekk bokk na ci mbooleem alquran ah yi suñu boroom ji ni muy maanaam soppe aaye est-ce que jarutoon ñi nga xam ne ñoo fi nekk alquran maanaam taxaw ci loolu fexe mu dañ ndax li nga ko wax bu doon benn kër la ci këri diine mhm. xam nga looy fajee kàddu mhm. yàlla nattoo leen mu defal leen fasaxa boo xamante ne wa ida raaytahum tuajibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasmaa li qawlihim mm-hmm. yàlla ne ka annahum xushubun musannada waaye la ca gën a yéeme mu ne yaxsibuuna kulla sayxatin alayhim humul aduwu faxdarhum mm-hmm. yàlla ne qatalahum allah anna yufakun borom bi mi ngi ne boo leen gisee ñu sol seen yére yi mm. ba pañe seen sikkim yi mm-hmm. boo gisee seen jëmm yi ni muy rafetee danga nga naan ñii ay kilifa piir yàlla nee na nag wa in yaqulu tasmaa li qawlihim suñu waxee dañoo fasaxa mënoo ñàkk ba ñu dégg seen kàddu yàllaa leen defal fasaxa boobu loolu ku muy sa ko ku nekk yaa ngi ko donnoo ci abdullahi ibnu ubay te kii nafiq la fu mu waxee nga daanu leer waaye ànd ak loolu yëpp yàlla nee na ka annahum xushubun musannada tekkiwuñu dara bant yu ñu wéer sax ñoo leen ñoo leen gën mm-hmm. waaye yaxsibuuna kulla sayxatin alayhim mm-hmm. ñoom ay tàppet lañ yoo xamante ne xaacu buñ dégg rek foog ne seen kaw lay dal <laughs> wallaay dëgg moo tax gis ne mm-hmm. ñoom kàddu mënul ci ñoom dara xool leen bañ leen jëlee yóbbu leen fële ca kaso ba ay jooy lañ teeree fii ci ci ci ci dëkk bi waaye àndak loolu yëpp tey fu mu nekk nii dafa am loo xamante ne yaru buur kese moo ko mën a faj dëgg la tey fu mu nekk nii tey ku dal ci yeneen kër yi mhm. wax ci lu tegginuwul mhm. taalibe yi ñoo lay jàpp ñàdd la mhm. waaye est-ce que loi boobu noonu am na ci alxuraan waa ñooñ alquran ci làmmiñ lañ ko mën naqarloo ak ci xol léegi nag ki nga xamante ne nag dafa jël ci yaram bi sàlloo ci maatay di jëf lu ko neex kooku dafa ñàkk jom moom ku war a wax si diine balaa ñuy duggaat ci beneen parti bi xam nga dangay gis koo xam ne day woote woo kilifa diine gis nañ ko fi boo xam ne day woote woo kilifa diine bu toogee di waxtaan ci diine bañ ne noonu bu ko neexee mu dindi mbaxana ma teg fële hmm. dindi kaala ga teg fële jóg fecc ba doyal hmm. wala ki nga xam ne ne kilifa la ba noppi te bu xëyee mën naa dem soirée di baatare di fecc di def lu nekk est-ce que kooku war nañu mën a roy si moom ci diine loolu day dellu wa aklu bi shafaati aw bi diini hmm. ci borom téere bi xam nga ku ne xam ne ne benn euh, lii nag sénégalais yi dañ koo mérité woo ndax ki fi bàyyi li gën dem seetu li gënul sa bakken rek nga topp dëgg la ndax tey yow gis nga ne kii li muy wax yëpp ci bakken la tege tey mu wóor ne ne moom li muy wax dàqu ko benn mbindeef ndax ñëpp am fit bi ñëpp am sañ-sañ bi waaye tamit yore téléphone yu leer yoo xamante ne mënees nañ koo defee waaye ñu ngi bàyyi xel ëllëg suñu borom ah. buñ teewee ci kanamam lañ doon wax nit ñi ànd ak loolu yëpp bu ñu tëddee biir bàmmeel ca ñetti fanu bàmmeel ya lan la ñuy tontu suñu borom kuy bàyyi xel lii yaakaar naa looy yëkkati di ko wax di ko jëme ci nit ñi di nga ko xoolaat mais koo xamante ne poñetu àdduna moo la jaral te mooy sama sëriñ ni mu koy faral di waxee Haadi Ñas nee na biye yi daal ci ay këyit yuñ jubóole rek wallaahi mais na këyit yi taxawaalu ci mbedd yi ak këyit yi boo leen taalee rek ñooy bokk ni ñuy tàkkee benn waaye ànd ak loolu yëpp dañoo bokk di dëppoo ci benn kàddu rekk loolu tax tey nga jaay sa ngor boo xamante ne wa na daaral axirat hiya daarul qaraar kër goo xamante ne day sax du jeex mukk nga bëgg ko weccoog loo xamante ne dafay jeex te mooy dund àdduna bi kan moo fi mën a assurer ne dina dund cent yu dëgër lii nag mu jaral la tey nit ñi wër la di la tàccu bu doon yow sa wax waxi bopp sax ngay wax mu tane waaye ngay sosal yàlla di di di ko di ko di ko di ko wax ay wax yu ñàkk teggin ci yu ñàkk xorma ay kilifa di ci jot di ci dégg adduñu ci benn kàddu kon daanaka alquran dafa tumuranke macha allah si amaxtaar si Omar Fuutiyu Taal moo ko waxoon ne li kulli qatilin mhm. naihatun yanahnahu subhanallah wallaay sa diinil muhayminu naihun seetaloo dam ne lépp lu dee rek am na ku ko jooy mhm. yàlla ji mu ne mooy joo xam ne mooy ji wét xam ne ku ci laal te ba mu koy wax bu yàgg la dafa daal di wax ne li kulli qatilin mm-hmm. naihatun yanahnahu mm-hmm. waaye nag walay sa diinil muhayminu mm-hmm. naihun su ko defee ñi leen di may nag vie rawatina nag partage maanaam ban conséquence moo nekke ci partage lu bon ah yonent bi ma ko nee na képp ku sos lu baax mm. ku ci tàbbi nga am ci yiw ndax sa loxo la bàyyee ko ku yaatal lu bon ku ko gis mu jaaree ci yow nga am ci pourcentage dëgg la ah yow yaa ngi nii da nga ubbi boîte de nuit nit ñi di ca fecc mhm. ku ci dóor pooj nga am ci pourcentage dëgg la ki nga xamante ne it tamit dafa tabax jàkk mhm. ah ku ci julli nga am pourcentage mhm. kon ñay partagé loolu mooy seen payoor dëgg la te sénégalais yi nag boo miinee di def mbon ñëpp lay invité ndax ni ah, borom télé bi moom xoolul lu baax ak lu bon mhm. moom liy dugal ci këram maanaam teraanga rek la xool ak liy doxal liggéey mhm. buñ gisee ne kii ñëpp koy suivre mhm. baax na ak bon na danañ ko invité hakada macha allah Cheikh Makhtar léegi ndaw yi Sénégal maanaam loo leen di dénk waaw xaj sengaan ndaw mooy ëllëgu réew te buñ deewee rek mooy réew dee na dëgg la waaye boo seetee fii ñu jëm fitna taxaw na de dem nañ ba ndaw yi léegi jaxasoo nañ ak kilifa yi am tuñ ci ñoom xorma fu ñu gessoo saaga leen muy benn bi ko ñaareel ndaw yi jublu nañ internet bi néew na ngay ngay défilé sa tiktok te doo gis fecckat yi wallaahi te bu doon dañuy yem ci fecc rek mu tane waaye dañuy sol yére jigéen di fecc ñoom góor ñi léegi beneen bi mooy jigéen pour mu am vue bu solee yére daanaka dafa mel ni nekkul à l'aise faaw mu xaw weeku ba yaram yëpp feeñ ci biti mm-hmm. loolu yëpp mu jublu ci ñu bësal ko kër après nga am ci lan dëgg léegi sa doom bi juddu ëllëg xamoo li muy doon mm-hmm. bu nekkee kilifa di waraate bu ñu capturer eh, image yu yaayam mm. rayuloo ko ah, kon ndaw yooyu fu mu nekk nii ñoo rey daanaka réew mi mm-hmm. waaye ànd ak loolu yëpp la ma ca gën a gën a gën a yéem tey jii may wax ak yow mm-hmm. mooy tey fi ñuy dugalee néew ci morgo bi ak fi ñu koy génnee benn la kenn mënatul sang néew déedéet beneen bi mooy nit ñi yàkkamti nañ mm-hmm. waa tey fu mu nekk ndaw yi bu ñu dë li nga xamante ne mooy yi mag yi sosoon mm-hmm. ñu dummóoyu ko wan ko gannaaw ah yàlla dana wàccee yaru mbugalam de wallaahi wallaahi dana wàcce yaru mbugalam macha allah Cheikh Makhtar mu mel ni ñu ngi si minute yu mujj yi. Mhm. comme waxtu yi ñu joxoon léegi ban message ngay dénk waa adduna bi yëpp bu defee ñi àgguwaale ci côté boobu. waaw xam naa ne moom dénk yeneen réew yi. Mhm. yomb na. Mhm. waaye dénk réew mu mel ni Sénégal jafe la <laughs> xanaa ma jéem rek. dëgg la ndax Sénégal sama sëriñ danay faral di wax ne. boo demee àjjana appartement ba fa gën a bëri bruit fa la Sénégalais yi nekk. wallaay wax na dëgg. ndax dañoo compliqué. wax dëgg. ndax ñoom benn test boo leen indi ne leen carrément nangam la ñi gën a ñàkk xam ca ca mbir ma ñooy ñëw ne waaye loo ci jublu dëgg la faw ñu dugal ci kàddu mm-hmm. ñooñu nag lañ leen di dénk mooy mm-hmm. ku wéet ku ne mm-hmm. yàllaa ngi lay wéttalikoo dëgg la nga wéttaliku yàlla mi ngi lay bàyyi xel dëgg la waaye da nga wéet foo xamante ne benn mbindeef du la fa fekk te mooy bàmmeel loolu nag ku ko dul bàyyi xel uh, ish ma chita allah te benn bi mooy sa baay lu mu la bëgg-bëgg ak sa yaay lu mu la bëgg-bëgg gisoo guloo mukk dee pàppam ne nañ ma suulaale ak moom du jëkkër du jabar du mag du rakk ndéem loolu doyul a exemple mën ngaa jëf lu la neex bu yomal xiyaamee nag yàlla bu lay duuma dana la booleeg di la wax comme la mu wax abula lahab zuqin naka antal azizul karim ndax doo mos si mbugal bi ndax yow yaa nekkoon ci àdduna na yaay ko tedd ki mm, mm, mm. yow yaa yore bës bi bës kenn du ko utee ci maanaam ñàkkee teggin yàlla bës utee ko ci leneen waaye ñàkkee teggin yàlla ci musiba rek la lay yóbbu jërëjëf Cheikh Makhtar looy tàggoo xanaa di gërëm yàlla mi nga xamante ne la mu mën ci man du benn mbindeef bu ko ci man dëgg la alhamdulilahi rabbil alamin macha allah Cheikh lool ci disponible bi ndax wax dëgg yàlla xam nañ sa yitte démb yaa ngi newoon Kaolack wallaay boole ko jafe-jafe bi nga am ci yoon wi ak xat-xat yi waaye nga dagg yitte yëpp alhamdulilah ngir rek sa kàddu gi nga xam ne joxe woon nga ko ba noppi te nag kàddu si la ñuy jàppee nit mhm. yàlla xam na ne amoon nga ngànt boo ñu woon tamit jox ñu ngànt dañ koy nangu ëpp waaye ñu ngi lay sant bu baax di la mm. gërëm ci turu Sunugal 24 alhamdulilah di sant ñi liggéey fii yëpp si Sunugal 24 bu ñu tegee cant gi si waaye yu jox ko ki nga xam ne mooy Dóor waar ak Mahfouz ñi nga xam ne ñoo nekk ci rési bi ak sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi teewlu émission bi fu ñu mën a toll rawatina Seydina Lay mi nga xam ne moo waroon def tafsir bi waaye suñ borom dogal yaatam ak yaatalam mm, moo tax mu ne na ngeen def yéen ngeen tourné seen émission comme sa invité bi ñëw na man ma bàyyi ba beneen yoon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm bu baax a baax mm-hmm. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu incha allah